asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki internetu Shamsu TV soxna Binta moo leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen waaye di jëkkër ci nuyoo bi ak ziar bi suñu maam alxalifatul am Baye Serigne Hassan Seck ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam wéral yi ba naa li mën naa la liggéeyal maamam yàlla defal ko kàttan gum ko naka noonu la ñuy nuyoo umma islamique bi yëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si ñoom mbégte lay doon ci ñun saa su ne ñu janoo ak yéen waaye di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñuy topp ak ànd bi ngeen ànd ak ñun ci suñu ay programme di leen wax ngeen wéy di abonné ci seen site bu mag bi di samsu tv jant bi leeral jamono wéy leen di abonné partagé like suñu vidéo ndax yéen a ñu yokk doole mbokk yi tey di dimanche yemoo ak le 5 mars 2023 ñu nekk fii nii ci yara waa samsu tv ànd ak yéen fii nii ci yara ngir takkusaan bu mag bi nga xamante takkusaan Seydina Mouhamad bi nga xamante ne alxaaji Maguette Diop Nabien moom moo koy amal fii nii ci Yaram waaye di ci delloo njukkal ki nga xamante ni moom moo di ma Madické Seck borom yàlla nee na bi ñu xëyee nag amal nañ fi ay wàcce kaamir lépp ñu fi ñaan yàlla yal na ko yàlla nangu ci barke Seydina Mouhamad doore nañ ko ak bismillahi rahmaani rahim yal nañ ko àggalee ak alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi xam naa fii la ñuy wàccee suñu kàddu bàyyi leen ak alxaaji Mar Diop leen jox dig daje ba ci kanam tuuti incha allah jërëjëf euh, jërëjëf euh, soxna Faat Bintu euh, soxna Faat Bintu Thiaw di am mbégte bu baax ak kontante ñëwaat fii ci cinquième édition takkusaanu Seydouna Mohamed ñu si delloo njukkal borom yàlla nee na Cheikh Madike Seck yàlla na yàlla dolli ay leeram taaju si barkeem tey di dimanche comme ni mu ko waxee rek le 5 mars 2023 Euh, ñu koy amalee fii ci yaraax yaakaar naa ni daaw ci heure bi nii lañ ko àndee woon ak yéen fële ca Sorano euh, ren nag comme yaakaar naa ni kenn dootul laajte li tax ñu defee ko fii ci yaraax ndax yaakaar naa ni euh, jekk na jaadu na ñu defee fii ko fii ci yaraax ndax ni ko mbokk yëpp sàkkoo bu ko defee rek jamono ji ñuy àddu teewlu ñaari waxtu ci bëccëg jot na kon nit ñaa ngi julli deux heures buñ si noppee rek dem ci bernde yi xewlu bu ñu noppee nag 17 heures rek ñu def mise en place bi euh, dal dalal gan yi yëpp rek ñëpp dugg si ñu dugg ci programme bi. Euh, tey cinquième édition yaakaar naa ni euh, di ngeen fi am ay nabiyen yu bëri waaye ki organise bés bi rek mooy Serigne Magué Diop mi ngeen xam moom Baye Ndiaga Diop Serigne Magué Diop moom suñu yaay Khoudia ture Serigne Magué Diop nekk président fédération daayira Serigne Thiénaba yi nekk ci Dakar moom moo organise bés bu mag bi yaakaar naa ni. lu yàgg lu nekk dëgg la yàlla na yàlla daf mu gën a sax waaye tey bés bi yaakaar naa ni dafa nar a ala daw me ndax soxna Bintu dinañ fi xaar sëriñ Pape Seck Mouxtada waaye tam yaakaar naa ni dina ànd ak eh, njabootam yëpp ñëw eh, rakka yi eh, doom yi waaye itam sët yeeg jarbaat mu muxaddam yi yëpp ndax bés bi dafa am leneen loo xamante ni moom moo ci laxasu ndax sëriñ Xalifa Ndiaye mi ñu xam ci kër sëriñ Madické Seck borom yàlla nee na ren moom la ñu darajaalee bés bi maanaam moo nekk invité d'honneur wala ñu ne invité spécial te yaakaar naa ni waxuma la Xalifa njaay waaye lépp lu tax ci Xalifa Ndiaye waajal nañu bés bi ndax euh, nangoo nañ ci Maguette Diop bi mu demee ba wax loolu sëñ Pape Seck Murtada dafa ne ko loolu defaloo ko xalifa Ndiaye waaye man nga ko defal kon bés bi yaakaar naa ni tey dina ala daw me dañu wàcce suñu kàddu rek bàyyi la euh, Fatou Bintou bu ko defee rek yaakaar naa ni du ñàkk koo mu defal ñu situation fan la bés bi dooree ak fan la toll ak lan la ñu mën a xaar ci bés bi. tey comme ni ñu leen ko waxee woon sànq rek ñu ngi nii taxaw ak ki nga xamante ni moom moo jiite wàllu organisation bi di Abdoul Ba ginnaaw ba ñu ko nuyoo ziyaara ko dañ koy tàllal suñu micro mu nuyoo présenté wu ak ñi koy seetaan ñu àggale suñu waxtaan. waaw salaamaaleykum waa kër gi ak waa àdduna ak waa Sénégal yëpp ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa ak sa sant di présenté wu man la Abdou Diène doomu Atou Diène bu Yaraax ñu wax salaamaaleykum wa rahmatullah ok Abdou Diène ginnaaw ba nga nuyoo présenté wu ñu ngi lay laaj euh, ndax programme bi euh, ñu ngi lay ginnaaw ba ginnaaw nga nuyoo présenté wu ñu ngi lay laaj organisation bi ndax yomb na. waaw yomb na yombul parce que organisation boo xam ni mën nañu ñëw at bi dinga si def ñaar yoon ba ñett yoon amaana moom yomb na parce que lépp loo yëkkati rek ñëpp duñ ci jàppee rek amaana day yomb parce que macha allah yomb na macha allah. Euh, programme bi fan la toll. waaw ñoo ngi ci finition yi comme lu ma waxoon sànq rek fi ñu toll ni moom ay dernier réglage la ñu toll macha allah presque lépp yemb na. Abdou Dieng ñan ñan yan nab yee lañ fi mën a xaar. waaw nabiyen yi xaar moom mooy nabiyen wu àdduna ndax suñ nee nabiyen bu nabiyen bee ayee nabiyen yëpp ñoo ngi si biir. waa kër euh, maam borom Touba ñoo ngi si biir waa kër maam El Hadj waa kër maam ni maamu Laay xam nga moom dañoo universel yàlla moo ñu moo ñu bindee noonu dañoo universel moo tax nabiyen yëpp lañ fiy xaar macha allah. macha allah question réponse yi jaar na yoon waaye mën nañu xam euh, yan euh, kilifa ñoom ñoo fi war teew. waaw kilifa moom suñ ne kilifa yu fi nar a teew moom suñ ko naree lim moom amaana programme dina ñëw ba jeex te du ñu jeexal si lim bi mais suñ ne suñ Pape Seck Mourtada bu bàyyi ma dikk sekk borom yàlla nee na rek moom coiffé na kilifa yëpp ñoo koy xaar bu soobee yàlla incha allah. comme ni ñu leen ko waxee woon rek ñu ngi taxaw ak kenn ci ñi nga xamante ni ñu ngi bokk ci wàllu organisation bi dañ koy tàll ginnaaw buñ ko nuyoo ziyaar ko dañ koy tàllal suñu micro rek bàyyi ko mu nuyoo présenté wu ak ñu koy seetaan. waaw salaamaaleykum soxna si ñu ngi lay nuyu baax di la bu baax waaw di wax ni tur bi Daouda Sall la bokk comme ni nga ko waxee ci commission d'organisation bi nekk ci ginnaaw Abdou Ba mi fi jóge léegi ñun nag ñun ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu siège ak nettoiement makkaan bi comme niñ ko gisee ñoo xëy ñëw wut sunu ay rato jël sunu ay loxo for mbalit yi rato fii place bi moom ba mu rafet dem jëli ay siège ñëw teg ko bëgg daal lu taaral bis bi comme ni ko ñëpp bëggee ak réussite bis bi incha allah. macha allah am na solo nga wax sa biir wax nga ne yéen yéen a yor wàllum organisation bi euh, yéen yor wàllu sees yi tamit ndax euh, euh, programme bi yomb na yomb na walla yomb ah non yombul wax dëgg yàlla comme ni ko ñëpp waxee ndax lii sooraanoo la doon xewee te tamit ku ne xam na sooraanoo nu mel boo jëlee mbirit jëlee ko Sorano andi ko fii. ku ne xam na ni dangay bëgg mu mel comme noonu moo waral yombul yàlla xam na ko waaye tamit sant yàlla ndax fi daal kenn mënul yàlla moo mën te yombalal nañu ko wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar bu baax incha allah lépp luñ ciy xaar ci réussite dinañ ko gis incha allah. ok mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee ci commencement bi dañ leen doon tijji rek xool programme bi fan la toll euh, dalal nañ fi ki nga xamante moom moo jiite wàllu organisation bi it dalal nañ fi it ki nga xamante ni moom moo yore wàllu programme bi seize yi base yi affaire yooyu euh, dalal nañ leen fi waxtaan nañ ak moom kon xam naa dañuy dañ leen bàyyee fii nii rek dañuy wàccee fii suñu kàddu bàyyi leen ba ci kanam tuuti bu leen fàtte abonné seen seen YouTube. Samsu TV jant bi leeral àdduna. te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran. ñàkk cee abonné dafa wóorul. fii mhm. fi abonné da nga abonné wu ci yonent bi abonné ci yàlla. dara naan yàlla kaay jàpp ci wóorul. Mhm. fekk lu yàlla jàpp nga jàpp ci moo a wóor te Samsu TV yàllaa ci la ni bégee ba aljana. ay waay di ko bégee. naay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana di ko bëggee